asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen si aara di leen baal xàq te di ko sàkk ci yéen ñu fas yéene ànd ak yéen ci diiru weeru koor wi ci naafile yi ci guddi gu nekk di ko sukkandikoo ci téereb sëriñ bu Mbàkke bu tudd Qurratul Ayni di dimbalikoo kàttanul sunu borom subhaanahu wa taala njëkk loolu ñuy sàkk ci yéen képp koo xam ne abonné goo ci seen youtube bi di Aynul Hayaat nga daal di gaaw daal di ci abonné ngir bu ndugalee naafile yi ngeen mën cee jot ak mboolem yi am njëriñ yi fi am ci bëccëg weer yëpp naafila guddik ñaar fukkeel ak ñaar nag ñaari rakkan la rakka bu ci ne fatiha benn yoon ak sabbi xisma rabbika laala ba saar wi jeex ñetti yoon ak inna anzalnaahu ba saar wi jeex ñetti yoon ak qul huwa allahu ahad ba saar wi jeex ñetti yoon ak qul audu bi rabbil falaq ba jeex ñetti yoon ak qul audu bi rabbin naas ba jeex ñetti yoon sëriñ bi nee julli googu day ku ko def yàlla dana ko tabaxal ci aljanna juróom-ñaar fukki dëkk yoo xam ne bu ci ne junniy ñeende dana ca nekk ñeende lu ci nekk junniy néeg dana ca nekk junniy néeg yoo xam ne wurus ak xaalis lay doon néeg bu ci nekk junniy lal dana ca nekk lal bu ci nekk junniy soxna nekk ca bu ko defee kon ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu nanguñu sunu koor nanguñu sunu ay jaamu yàlla ci barkab Seexul Xadiim jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.